Dieye day def bruit. waaw non El Hadj kii jey dafa génne album. waaw te loolu passeport artiste la. Mm-hmm. nee naa ko am na ñu génnewul album donc je respecte ça. Mm-hmm. El Hadj moom jàmbaar la parce que moom dafa jàpp ci concept am te mu ngi ci. Mm-hmm. te mu ngi koy def mu ngi nice mu ngi coloré mu ngi nice loolu moo tax neex na. <laughs> ana ko mu wax Canabasse génnewul album. <laughs> Canabasse génnegul album génnegul. ah carrière am je pense que jeexagul. kon kooku amul passeport. ah kooku amul. <laughs> lan man. yaa waxal yaa punchline. man de yow yow yaa bul daw. yaa punchline. yaa ngi daw de ta non daw ma bon ok wax nga dëgg parce que instant bi boo boo nee sa xel day dem ci Canabasse. mais du Canabasse kese xam nga Omzo Dollar génne na album. ku génnewul lañu wax. ku génnewul Canabasse génnegul album ci ma ci lu ma dégg. waaw am na ñu bëri ñu génne après mënoo jàpp ñëpp. mais bon yow yaa wax Canabasse moo tax mu waxtu. Ah, parce que Dieye nga wax dafa am passeport. parce que yombul album daf ko liggéey. non yombul yombul ah. album du caaxaan yeneen ñaari yeneen ñaar <laughs> yow da nga a dugal.